yàgg naa ñëw di la seet si ndax sopp la na lool naa fi ak euh, professeur nya nga yendal ñu bu neex euh, ñëwaat fi seetluwaat ak El Hadj Niang euh, ñëwaat fi waxtaan nga may ma livre bu baax a baax macha donc may jégalu rek ci li fi te fas yéene woon ñëw fii ma am ay gàllankoor yu bari ndax liggéey bi ak euh, wér-gu-yaram tey li ñu fi indi mooy yaakaar yaakaar bu rëy buñ am ci yow yaakaar bu rëy buñ am ci sa martaba yaakaar bu rëy boo xam ne am nañ ko ci kàddu goo xam ne bu fekkee ne jib na fii ci réew mi ak fi mu tollu yàlla dina ci def barke loolu moo tax ñu ñëw euh, ndax tey nag euh, euh, réew mi dafa xaw a ni mu tëree dafa doy waar ndax ñu ngi waaj voté benn loi loi bi fi mu toll sax li ñuy wax commission des lois kuréel bi nga xam ne ñoo koy jëkk a saytu joxe ci li nga xam ne moom lañ si xalaat indi na problème problème bi mu indi mooy am na ñu bugg waxtaane loi bi am yoo xam ne déggoowuñ ci ñu bugg cee waxtaan ba la loi bi ñu koy adopté donc gàllankoor bi nga xam ne moo jëkk pour waxtaan am mooy nu ñuy defee ba nga xam ne daañu ñu téye loi bi ba waxtaan am ñaareeli gàllankoor bi mooy ñii nga xam ne bëgg nañ waxtaan te yëkkatiwuñu loi bi ñu fas yéene génn ci mbedd mi indi fitna indi ay léegi nag bu kàddu jibee ne képp koo xam ne kii lépp loo xam ne dafay gàllankoor walla dafay gàllankoor waxtaan ci diggante ñii nga xam ne ñoo amee nguur gi ak ñii di xam ne ñooy opposition bi ñu téye ko. pour waxtaan am parce que waxtaan rek moo mën a indi jàmm ci réew mi fi ñu toll nii waaw loolu moom moo ne woon suñu tànk euh, pour que kii nga xam ni mooy jiitu nguur gi muy président Macky Sall dem nañ seeti ko gis nañ ko waxtaan nañoo ak moom euh, wax nañu tamit li tax mu téye ko ndax waxtaan dafa jafe woon lool ci diggante opposition ak pouvoir ba mbir mii ñëw ñaan nañ ko nag mu téye loi bi ba nga xam ne dañ koy aj suspendre ko ba waxtaan mu a am waa opposition it ñu ngi ñuy woo nu ñu waxtu woo xamee ne téye nañu loi bi rek ñoom danañu ñëw waxtaan te waxtaan woowu mooy tax fitna du am te fitna nag ci jamono ji ñu tollu ak fi nga xamni mom la Sénégal teud ak fi nga xamni tamit eh, suñu gox bi yeb diwan yeb Afrique fa la tollu ak li xew Mali li xew nigeria Niger Tchad lolu ah bu fekke ne ciow amna duñu kep xam fan lay egg lolu motax kep ko xamni ki deug deug euh mën nga ci wax te yow ñun ñu am yakar bu baax lolu ñu andi fi ñu am yaakar bu baaxa baaxa baax ci yow Serigne Touba ni bo waxe rek macha allah wala nga ñaan jamm dina am donc dañu ñew sakku ñaan sakku sa kaddu pour que waxtaan am jamm am ci Senegal, senegal may jéggelu ci wax ci yenn mo tëddee. dégg na seeni kaddu dégg na seeni xalaat rafetlu nako rafetlu may mépp mbooloo moo xam ne ay mag a ëpp ñu jóg jàmm tax leen a jóg ñooñu ña ci seen warteef mag moom jàmm la war di sàkk waxtu wu nekk ndax jàmm rek am solo fitna it noonu la ñàkkee solo alxuraan mooy wax loolu wattaqu fitnatan laa tusiibanna alladiina zalamu minkum xaassa fitna baaxul ci kenn du caa génne ndax wolof yàggan ay du yem ci yem ci bopp boroom wolof di wax it ñax góor dana la gu tooy ba buñ ñu bokkee fu ñu sax kon jàmm ji ñëpp ko bëgg waaye bu ko ñëpp bëggee sëñ bee ko gën a bëgg ndax sëñ bee moom ñëpp sëñ bee moom moo jaboote ñëpp wayante ginnaaw liggéey bi kenn ku ne am sa wàll te wàllu sëñ mooy li ci ñaan xam nga yéen na ñaan ngeen di waxtaan bi sëñ bi ñaan ngeen di waxtaan jàmm rek kay am sëñ bi loolu lañ gis loolu lañu gis na itam sëñ moom ñaan rek la moom yéen moom yéen a ngi waxtaan ña nga leen di sëñ bi di ñaan bu yaayaar ànd rek lépp baax kon nag sëñ bi moom nana ci ñaanam rek te gëm nañ ne bu ñaanee suñu borom la mu ñaan suñu borom dana ko may te loolu yàgg la ba toogee ci Medina dafa bind ab leetar di ko indi Touba. di ko di ak sëñ Touba ñaan. ngir ak dal am foofa. kenn du saa fa lépp nekk fa. kon ba fi mu nekk ni fu mën a doon ci àdduna gi. ñaanuk sëriñ Touba bu fa ñaanee jàmm mën naa fekk àgg foofu. rawatina biir nekk. te mën na noo gëmandoo ne. la xew Mali bu fi amut. xew Burkina Faso bi amut xew Niger bi amut jàll ba Libye. jàll ba Moyen-Orient jàll ba fépp.